بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وأثنى خديمه ذوي الرضوان والتمكين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جلدي ginnaaw bi ñu santee suñu borom subhanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi yeesal suñu jaayante ak suñu cofeel ci suñu yaakaar Mawlana al Abdul Xadim di leen nuyu nag yéen ñëpp leen ndokkeel di jiital ci loolu ñu kilifa gu baax gi nga xam ne moo nekk ci suñu kanam di a Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñu koy ndokkeel bu baax ci weeru koor wi di ko ndokkeel itam ci liggéeyu islaam bu am solo bi ak ci liggéey yi niroog moom yépp mu ngi ko ci ndokkeel di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool te dolli ko wér dëpp ko kàttan ba mu àggale naalam yu am solo yi mu naalal lislaam lislaam bi nga xam ne mooy toolu Sëñ Tuubaa di teg ci loolu ndokkeel kilifa yi diine yëpp waaye di jël nag nuyoo ak ziar di ko teg ci suñu mbokk yu baax yi nga xam ne ñoom lañ àndal liggéey bi teg seen loxo suñu Abdou Lahad yow mi nga xam ne yaa yore commission culturelle bi te yàlla def tawfiq tey te idaara jalsa bi ñu ngi lay ñu ngi lay yóbbante ko nuyoo ak ziar ak ndokkeel ci sëñ Atiya Imaam ak mboolem bokki daayira Muqaddamatul Xidma ñu ngi leen di ndokkeel bu baax ci koor gi waaye di leen ndokkeel itam ci liggéey bi liggéeyub diine bi liggéeyub sew xadim bi tasaare xam-xam ak tasaare njàngalem sëriñ bi ak lépp loo xam ne rek lu jëm ci luy dundal ruux la wala muy dundal maanaam jëmm ba tax gis ki mën a taxaw jaabu borom ci ci weeru koor yi muy iftaaraat yeeg xeeti ndogu yeeg ak lépp loo xam ne jotaay xam-xam yi dañ nga ëmb na ko di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp di ñu bàyyi xel ci biir bërëb bu tedd bu mag bi waaye di nuyu itam ñi nga xam ne ñoo ne ci biti ak fu ñu mën a ne ci réew mi ak ci bitim réew te di ñu bàyyi xel ci liggéey bi xam naa Cheikh Abdou Lahad ni nga ko ubbee rek noonu lañ ko fas yéenee defe bu soobee yàlla ci kàttanu yàlla ak baaxam tomb bi wax nga ko mooy bëgg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay màndargaam bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay màndargaam ñu xalaate ko nag ni ko suñu laat waxe léegi tënk ko ci juróomi tomb bu njëkk bi mooy laytaaye ko bala ñu bala ñu bala ñu ñëw ci dëgg dëgg màndarga yi xam ne mooy maanaam lubbul mawdu danañu ko laytaay xamle ci lu gàtt lan mooy almahabba bëgg ci boppam mooy lan ñu ko waxee ci làkk wi ak bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam nga xam ne mooy tomb bi moom mooy lan ñaareel ba mooy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay farat day lu war ci ñun ñëpp loolu itam ñu indil ko xoñu boppam ak firnde yi ci rot yëpp ci alquran ak sunna ñetteel ba nag muy dëgg dëgg waxtaan bi muy màndarga yi nga xam ne ñooy firndeel bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yi nga xam ne bu ko nit ki dee doxe wala mu di ko jëfe wala mu di ko waxe wala mu di ko fase danañ mën a wax danañ mën a seede ne kii kat bëgg na yonent bi ndax bëgg danañ ci ñëw tey lu nëbbu ci xol la nekk dee ko te àtte ci nit mënoo wax nit ki nit ki bu la nee bëgg naa diw mënoo ko wax ne ko bëggoo ko waaye nag am na ay màndarga ak i tegtal yoo xam ne mooy wane ne kii kat li muy woote muy bëgg gi dëgg la ci moom ki nga xam ne nag ku ñuy bëgg ku ne moo ci gën a yey muy sallallahu alayhi wa sallam ko ku kuy woote ak bëggam ko war naa am ay melo ak i màndarga ak i jeexit yuy tegtali bëgg googu yi loolu mooy màndarga yi mooy ñetteelu tom ñeenteel bi danañ joxe ay misaal ci gaa yu baax yi nga xam ne ñoo jiitu tàmbale ci saxaaba ñu tudd ci ñenn ñoom ñi nga xam ne ñoo dundoon ak sallallahu alayhi wa sallam ci niñ ko bëggee woon ak niñ ko soppe loolu yépp dana doon bind boo xam ne danañ ci mën a jànge lu bari waaye nag ñu gën a taxaw nag ci suñu jàmbaar ji nga xam ne moom kuy wax bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba agsi ci moom da ngay daal di taxaw moom dootoo jàll man ngaa dara nag fu ne moom ci kaw di ñëw di bërëngu ba agsi waaye boo ñëwee ba ci moom moom jërëtul ngay dem fenn boo tàmbalee ci moom jërëtul ngay ngay àgg fenn ndax moom damay wax ne law kaanat mahabatu rasuli sallallahu alayhi wa sallam jasadan bi ruuxihi wa uruqihi wa idaamihi wa damihi la kaana cheikhu alxadimu hada aljasad su fekkonte ne bëgg sallallahu alayhi wa sallam dafay yaram jëmm di taxaw am ruuxam am li jëmm yi am lépp ay cëram ak lépp nga ci biir gi ci biti ñu mën koo xool man ne lee kee mooy bëgg yonent bi wala lee mooy bëgg yonent bi damay wax ne kon jëmm jooju mooy sëñ mag moo taj siit moo jëmbal dëgg-dëgg mahabatu rasul sallallahu alayhi wa sallam kon kooku kuy wax bëgg yonent bi ba agsi ci moom rek mën nga caa yem du tee nag danañ tàmbali tudd ay ay jëmm tedd yu lu baax rawatina saxaaba yi nga xam ne ñoom dañoo joxe ay misaal yu kawe ci bëgg sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee nag bu ñeenteelu tom boobu jàll rek ñu tëje ko meññet yi nga xam ne wala tuyaaba ñu ko tudde yool lépp li nga xam ne daal dana juddoo ci bëgg yonent bi ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te muy dëgg ci moom te yàlla tax la ko cee yàlla di fàggul ci fii ak fële ndax loolu dana tax ñu xam solos bëgg yonent bi mooy lan nga xam ne tomb bi mënoon nañoo wax dëgg tàmbalee ci lan mooy solos bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bu ñu bu ñuy tëj bu ñuy tëj ba ñëw ci meññet yi dana dana dana ci leere am solo ki nga xam ne moom la bëgg sallallahu alayhi wa sallam am solo ba tax ñu war koo tànn di ko waxtaane ci jotaay yu mel nii kon loolu mooy maanaam juróomi poñ yi nga xam ne insha allah ci lañ fas yéenee tënk waxtaan wi bu ñu tàmbalee ci tomb bu njëkk bi nga xam ne mooy mahabba mooy lan al mahabba bu dee baat bi rek li muy tekki ci arab moom jërul sori lool ndax taxul mu maanaam yittee di noonu waaye boo demee ci lisaanul arab ibn manzur day wax ne mahabba aw tur la ci baat bi ñuy tuddee alxobbu alxobbu mooy te mooy tekki ak bëgg mahabba gii ñuy waxtaane aw tur la ci aw xeetam la kon ci moom la xeetoo te xobb moomu di tekki ak bëgg nee na safaanam mooy albordu mooy bañ te nee na albordu ma nes na ko firee alwidaad ba tey muy tekki rek sopp ak bëgg am ñenn ci ulama luga yi ñoom wax ne alxobb ismun li safa il mawadda bu ñu nee bëgg dëgg-dëgg li muy tekki mooy tur la moom it di firi cofeel bu sell cofeel goo xam ne dafa set wecc nga xam ne dara dox mu ne ndax ñoom arab yi baaxoo nañ di wax bu ñuy misaal nit koo xam ne ay bëñam dafa dafa weex dafa weex nga xam ne melul daal sama bëñ yi dafa weex daal nga xam ne moom tabarkàlla bu dee ñëpp mën koo xool baaxoo nañ di wax ne kooku maanaam ni ni ni ay bëñam mel ak ni mu sell ak ak ni mu weexee ñu koy tuddee aw tur woo xam ne mooy xababul asnaan xababu al asnaan baatub xabab ku ne xam ne ne xeetoo na ak xobb ñoo bokk ay cosaan kon gis nga am na cosaan bu dëgër ci làkk wi boo xam ne buñ ci buñ ci taxawoon dana gën a yaatu waaye damay wax ne loolu moom yaa naka jërul sori lool ku ci bëgg a gëstu mën naa dee ci ci xëy na maanaam maajum yéeg ak mun jiit yeeg yooyu dana ci gën a am lu gën a leer bu ñëwee ci almahabba ci istilaaxul ulama ni ko rawatina ulama al xaqiq ni ko borom xam-xam yi nit yàlla yi ñoom ni ñuy firee mahabba te ma fàttali ne mahabba dafa bokk ci maqaama yi yi gën a kawe ci li nit yàlla yi tuddee maqaamaatul yaqin am na juróom-ñeenti maqaama yoo xam ne nit ñu baax ñi bind nañu ci wax nañu ci dañuy wax ne kenn mënul dem ci yàlla ba àgg te jaarul ci maqaamaatul yaqin yooyu nga xam ne juróom-ñeent boo jàngee téere bi mu ne mënoon baaxi xadim Cheikh Amadou Bachir bi muy jàngat dundu sëriñ bi ci wàllu xaqiqa ci wàllu maanaam tasawuf da ko séddale ci maqaamaatul yaqin yooyu nga xam ne tàmbalee ci at tawbaak as zuhdoog as sabroog ba at tawakkul ak al xawfoog ar rajaa ak yëpp ba agsi nag ci al mahabbatu war rida wal uns nga xam ne mooy bi ci gën a kawe nag ñoom sax dañ ko tudde al mahabbatu al xaasa mahabba bi nga xam ne moom bokkul ak yeneen xeeti mahabba yi ci des kon maqaama la min maqaamaatil yaqin muy al mahabba al xaas xëy na dinañ ci dégg si waat waaye bu ñu ko bëggee firi ci ñoom ni ñu ko déggee dañuy delluwaat ci waxi ku mel ne alqaadi Iyaad borom ashifa bi taarifi xuquqil Mustafa téere bu am solo boobu nga xam ne téere gënu koo yaatal ci melal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu siiraam. ci ci fànn yu bari nag bari ci maanaam jawaali bu xayaati sallallahu alayhi wasallam ni ci sifa ñëwee ak ni mu ci ni mu ni mu ko jàngalee ak ni mu yombe nga xam ne boo koy jàng da ngay da nga koy gaaw a digg te gaaw cee jëriñu néewaana nga gis téere siira bu mel noonu mënees na koo gën a bari nag waaye ëpp ko njëriñ moom bu ñu andi woon li ci borom xam-xam yi wax rek daa yaakaar naa dana dana doy sëkk am na naaru gànnaar bu ñuy wax ibnul mualla ci naari gànnaar yu mag yi ma dàq woy ci ci ñoom ci la bokk te taalif ci sëñ bi lu bari ak ci njabootu sëriñ bi bi muy melal minan bi ma tudd léegi ci ni mu xamlee jaar-jaar ci Seex Xadim daf koo méngaleeg sifaa daf ne lawlaahu maa urifa xadimul mustafa ay lawlaa al al al maanaam minan lawlaa al minan lawlaahu maa urifa xadimul mustafa la waaw maanaam da daa wax ne lawlaahu maa urifa alxadimu kama shifa lawlaahu maa urifa annabiyu almustafa bu dul woon ak minan kon du ñu xam sëriñ bi dëgg-dëgg mu ne ni nga xamee ne bu dul woon ak shifa bi taarifi xuquqi almustafa kon du ñu xam kan mooy sallallahu alayhi wa sallam lawlaahu maa urifa alxadimu kama shifa lawlaahu lawlaahu ji njëkk jee mi na ko moom foofu lay dellu maanaam damir ba lawlaahu ñaareel ji nag dellu ci ashifa moo tax mu ne kama shifa lawlaahu maa urifa nabiyul Mustafa bu du woon a shifa kon du ñu xam dëgg-dëgg àqi Mustafa moo tax boo demee ci shifa nag bi muy bi alqaadi ayaat di wax ci mahabba bii rawatina bëgg yonent bi ak bëgg yàlla dafa ne borom xam-xam yi dañoo wuute ci firi lan mooy bëgg yàlla ak lan mooy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne seeni wax bari na ci lool mu ne waaye nag wuute googu am ci seeni wax delluwul ci ne jëmmi baat bi ci lañ wuute ñoom ñëpp xam nañ ne baat bi lenn lay firi ci làkk yi waaye seeni yëg-yëg ak seeni xaal moo wuute moo tax ñu wuute ci wax yi nii mu joxe ci ay misaal mu ne ko mel ne Sufyaanu Sawri day wax ne mahabba rawatina mahabbatu rasul yi ñuy waxtaane mooy topp yonent bi mooy topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom noonu noonu rek la ko tënk al al mahabbatu ittibaau rasuli sallallahu alayhi wa sallam am keneen ku wax ne sopp yonent bi mooy fas gëm ne da nga koo war a jàppale da ngaa war a défendre sunnaam maanaam da ngaa war a xeex ngir sunnaam gën a dëgër gën a sax waaye da ngay wommatu itam ci topp sunnaam ak moytu waxuma sax moytu waaye ragal wuute ak sunnaam kooku moom noonu la ko firee mahabatu rasuli ictiqaadu nusratihi wa dabbu an sunnatihi wal inqiyaadu laha wa mahabatu muxaalafatihi maanaam mu mu mu muxaalafatu rasul sallallahu alayhi wa sallam ndax xam ne li li li ne ci muxaalafa ci wuuteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu alqaan da cee rob ci ay tëkko yu xaw a yu xaw a tar wa man yusaaqiq rasula jooju ñu koy jàng keneen wax ne al mahabbatu moom wax ne moom cofeel mooy saxoo tudd ki nga sopp kooku da ko yaatal moom nga xam ne wala sallallahu alayhi wasallam rek waaye nit ki daal su bëggee lam bëgg wala kam bëgg day dëkk ci di ko tudd ci di ko waxtaane bu bari loolu bu ñëwee sax ci dëgg-dëgg ndax ñi ñii li ni ñu waxee ci ma ci mahabba day mel ne ñoom dañoo junj rek maanaam alaamaat yi yi nga xam ne ñooy firndeel dëgg-dëgg mahabba moo tax dañ ciy jaar nii rek daal di jàll bu gasee ci ci alaamaat yi nag man cee gën a yaatu am keneen ko wax ne mahabba daal dëgg-dëgg mooy muwaafaatul qalbi li muraadi rabbi kooku it kooku itam taxarif bu am solo la la la la baaxee maanaam la ñu baaxee mooy dafa wax ne cofeel bëgg dëgg dëgg wala maanaam bëgg yàlla wala bëgg sallallahu alayhi wasallam mooy xol bi sa xol di dëppoo li yàlla bëgg xol bi di di di di di ànd ci di dëppoo li nga xam ne moom la yàlla bëgg loolu mooy lan yuhibbu ma ahabba wa yakrahu ma kariha li yàlla bëgg xol bi di ko bëgg li yàlla bañ xol bi di ko bañ alqaadi ayaam nag bi mu waxee wax ji bàggal bi mu ko nettalee bàggal daf caa teg ne dëgg dëgg mahabba moom ci aw dégginam mooy nit ki di jàng jëm ci wala xolam di jàng jëm ci li nga xam ne day dëppoog bakkanam dëppoo ga muy dëppoog bakkanam ak jàng ga muy jàng jëm ci moom ay mbir mën na koo waral benn ngir bànneex bi muy am ci yëg bu muy yëg loola su ko gisee di ci bëgg su ko déggee di ci bëgg su ko xalaatee di ci bëgg su ko laalee di ci bëgg yooyu ñu tuddee maanaam juróomi yëg-yëg yi yàlla di mooñaale ak doomu aadama mooy gis bi ak dégg nga dégg bi ak xëy na mos bi ak xet bi ak laal bi yooyu yi nga xam ne bu ci nit ki jaaree ba jonjoog mbir mu mën a doon mbir mooma mu am ca bànneex wala mu gis ca bànneex wala mu saf ko bànneex wala mu yëg ca bànneex bu mën a doon jéng nga xolam bi jéng jëm ci loola mënees naa tudde jéng googee al mahabba ak cofeel ak bëgg mu joxe ci misaal mu ne lu mel ne bët day bëgg di xool ay melo yu rafet ay image yu rafet nopp di bëgg di dégg ay kàddu yu rafet xam nga buñ toogoon fii ku neex baat te man alquran mën a tajwid di yëkkati jàng alquran di ko tajwid baat bi neex buñ ko teewloo dëgg dëgg dana dana taasiir ci suñuy xol danañu dana jur ak sopp ak dollee sopp alquran waaye dana jurit ak sopp ci jëmm ji nga xam ne moo koy jàng ndax dañuy sopp kàddu bi ndax maanaam nopp yu koy diglu daa bëgg di diglu lu neex maanaam kàddu bu neex naka noonu ku doon yëkkati xasida ko daa jaaj bu neex tey tey maanaam njàng-njàng mu wér di jàng-njàng mu mag ñi danañ ko teewlu ba mën naa def taasiir ci ñun ba jur cofeel ci kàddu gi ak ci borom kàddu gi naka noonu itam ay ñam yu neex ay naan yu neex yooyu xam naa ndaw ko ndaay xëy na sax moo tax muy wax ak yooyu yëpp lépp loo xam ne rek jikkoy doomu aadama du mucc bu koy bu su su ko yëgee xolam jàng jëm ci loola loolee mënees na ko tuddee ak bëgg topp na ko nag di wax wax ba agsi nag ci joxe misaal ne lu mel ne bëgg gaa yu baax yeeg bëgg borom xam-xam yeeg bëgg ñi nga xam ne dañuy defal nit ñi lu baax yekk te ñooñu ñooy ñi nga xam ne dañoo nettali ci ñoom ay siira ay dundiin yu rafet ay jaar-jaar yu rafet daal ak ay yëf yu rafet yoo xam ne tax na ba bu ñu leen dee nettali ci leen di dégg ci xamu leen sax da leen di bëgg ndax doomu aadama yàlla dafa bindee daa bind bakkanam ci sopp kii rafetal jëm ci moom kii def lu baax jëmi ci yow faaw da nga koy bëgg donte xamoo ko sax nag léeg-léeg da nga ko bëgg wala nga dégg ne nit ku baax la ñu nettali la ci moom lu baax boo dee boo amee dara ci baax da nga koy sopp da nga koy bëgg moo tax mu joxe misaal yooyu man nag bi mu waxee li ma ne kon bu ñuy wax nit ku baax ku ñu war a bëgg wala borom xam-xam nit ku baax mooy nga nekk ab yonent wala nga nekk wali wala ku mën a doon wala borom xam-xam buy jëfe xam-xam ba tax ñu war koo sopp wala kuy defal njekk bindee fi yàlla yi ba tax ñu war laa bëgg yaakaar naa kenn gënu caa yay nag ki nga xam ne mooy sangu sang yi sallallahu alayhi wa sallam kooku nga xam ne moo gën a taaru ci nit ñi ndax bu ñuy bëgg jëmm ngir taar ba warees da ko bëgg moom ndax mooy ci gën a rafet ci lu yàlla faj Seydina Yusuf sax dañ naan rafet na lool waaye sallallahu alayhi wa sallam ko gën a rafet mooy ci gën a rafet jikko waaye moo gën a rafet mbind it ni mu gën a rafete mbind noonu la gën a rafete jikko moo tax Cheikhul Xadim yaakaar bi baax ji wax ko ne nabi yi nabiyun jammal allahu daatahu kama axsana al axlaaqa bi tuhri kama axsana al axlaaqa bi tuhri wa raqi wala wa raqi waxin ne wa huwa akmalu al wara xalqan wa xulqan zahara wal mislu qattu lam yura walam yura fi shay'in mu ne sama yonent man Cheikhul Xadim day mooy yonent bi nga xam ne yàlla dafa taaral jëmmam rafetal ay jikkoom ci satal ko ci lépp loo xam ne luy yàq jikko la waaye yéege ko nag ba mu àgg te dayo ba gën a kawe innama bu'istu li utammima makaarima al axlaaqi la waxoon moom sallallahu alayhi wa sallam mu waxaat ne mooy ci gën a mat ci mbindeef yi ci wàllu mbind ni jëmmam mate nga xam ne doo ko xool ba gis ci moom dara luy nuru ak wàññi noonu la jikkoo mate itam war mu ne ku mel ne moom nag kenn mos koo gis te kenn dootu ko kenn dootu ko gis itam ci mbindeef kon sallallahu alayhi wa sallam mooy ci ëpp ci nit ñi ci li yàlla sàkk ci mbindeef yépp moo ci gën a bari teraanga gën cee jot njekk ju mu amee joo xam ne defal na ko mbindeef yàlla yi moo leen gën a ñeewant rawatina ñi gëm yàlla nag moo leen gën a yërëm itam ndax yàlla da koo yónni mu nekk rahma yërmande ju mu may jaam ñëpp mbindeef yëpp ba noppi nag wax ne kii ma yónni ci yéen muy rahma muhda ku am ñeewante la ci yéen ku leen yërëm la bil muminina raufun rahim kon bu ñu sukkandikoo ci loolu dañuy gis ne sallallahu alayhi wasallam moo gën a yey ci nit ñëpp ci mbindeef yëpp ci sopp ko ak bëgg ko ak di ko xalaat foo toll ak di wone cofeel goo am ci moom wone cofeel goo am ci moom googu nag wala jëmm cofeel googu ci boppam nag loolu moo ñu yóbbu kon ci ñaareelu tomb bi day lu mënta ñàkk moom cofeel googu day farat ju mënta ñàkk rawatina ci ñi gëm yàlla loolu it firnde yi ñu ci am te muy doy sëkk yenn yi ci alquran la yenn yi itam ci wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay ci ci ay ahadisam yenn ci ay ahadisam bu ñu demee suratu tawba aaya ñaar fukk ak ñeent suñu borom day wax day wax ak jullit ñi di ko jaarale ci làmmiñu sallallahu alayhi wa sallam dina wax ne am na ci ñoom jullit ñi ñoo xam ne bi ñu gàddaayee jógee màkk ñu madina dañoo bàyyi foofu seen i bokk ay wayjur bàyyi fa ay soxna bàyyi fa am commerce bàyyi fa ay kër du ñëpp nag waaye am na ci ñoom ñoo xam ne bi ñu ñëwee seen xel dafa nekkaat ci yooyee ñenn ñi xëy na delluwaat nañ ñi ngi def safar nanguwuñoo gàddaay sax wala ñu nangoo dem jihaat yi ngir ne bëgguñoo bàyyi seen bokk ya ñu bàyyi ca makka wala seen soxna ya ñu bàyyi wala seen doom ya wala seen alal ya wala seen kër yi suñu borom nag waxee ñoom ci làmmiñu yéen saa sallam waxin woo xam ne nag waxin wu xaw a diis la mel ne ku leen di taxdir leen moytuloo di wax ne yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax leen ne leen ñoom ñoo ñii mel ni ñi ma wax bu fekkente ne seen baay yooyu ak seen doom yooyu ak seen mbokk yooyu ak seen soxna yooyu ak seen askan woowu seen giir go go giir giñ bokk ak seen alal yi nga xam ne dañ koo fàggu wala commerce mu ñu ragal ne buñ ko toppatoowut mu lamb wala seen kër yiñ bàyyi muy kër yu bakkane moo leen gënal moo leen gënal yàlla akub yonentam yàlla akub yonentam la wax ak jihaad ci yoonu yàlla ne leen nañ xaar rek nañ ñëggandiku rek baat bu ragal la jëfandikoo fa tarabbasu nañ xaar rek nañ toog foofu xaar ba yàlla ñëw ak mbiram ba yàlla ñëw ak mbiram te ñu xam ne yàlla du jubal ñi nga xam ne dañoo génn ak topp su nga fii sax da leen a tafsiq qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum wa ixwaanukum wa azwaajukum wa ashiiratukum wa amwaalun iqtaraftumuuha wa tijaaratun taxshawna kasaadaha wa masaakinu tardawnaha ahabba ilaykum min allahi wa rasuulihi wa jihaadin fi sabiilihi fatarabbasuu hattaa yaatiya allahu bi amrihi wallaahu laa yahdi alqawma alfaasiqiin moo tax alqaadi Iyaad ma tuddoon léegi bi muy commentaire ci aaya bi dafa ne aaya bi rek doy na sëkk soññ ak yeete ak tegtal ak lay ak lay ci ne bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallama laazim la farata la du mënti ñàkk ndax nee na suñ borom ci aaya bi dafa yedd yedd gu metti ñi nga xam ne dañoo jàpp ne seen alal yi ak seen doom yi ak seen njaboot yi ñoo leen ñoo leen war a gënal yàlla ak yonentam mu leen fa tarabasu da ngeen xaar rek toog leen xaar rek ba yàlla ñëw mbiram yemu ci mu tafsiq leen mu ne ñooñu ay kàccoor lañ ba noppi ne di ne nag du leen jubal nag te du leen jubal kon muy lu raglu loo xam ne lu mat a bàyyi xel kon aaya boobu firnde la ci ne yàlla ak yonentam danañ ñëw ci bëgg yàlla ak bëgg yonent bi ndax bu ñu ñëwee bëgg yonent bi day mel ne dañ koo génne ci bëgg yàlla fekk déedéet bëgg yonent bi day dugg ci biir bëgg yàlla bëgg yàlla mooy li am solo ndax fi ne day wax ne bëgg ba bëgg jeex bëgg yàllaa ci gën a wóor ndax loo mën a bëgg ci àddina ak koo mën a bëgg ci àddina jant dana fenk wala jant so nga am lu la naqari ca bëgg googee wala ci kookee nga bëgg wala ci loolee nga bëgg ba mu des yàlla yàlla mooy ki nga xam ne bëgg ko njariñ kese la loo xam ne ànd ak lool doonte nag bëgg yàlla lu yaatoo yaatu yaatu ndax bëgg yonent bi day dugg ci biir bëgg gaa yu baax yi day dugg ci biir bëgg alquran day dugg ci biir bëgg ñi gëm yàlla day dugg ci biir ba ci sax bëgg mbindeefi yàlla yi sax nga bëgg leen ci kenn ku ne la lay àqam ca bëgg ga nga jox ko ko ngir yàlla sax day dugg ci biir bëgg yàlla yaatu na yaatu na lool waaye nag bëgg yàlla dëgg-dëgg nag mooy li am solo kon bu ñuy wax bëgg fii danañ ci dellusiwaat ci wax imaam Ghazali mu gën a leer ci ne bëgg yonent bi muy bëgg yàlla ci kanam loolu moo kon mën naa bàyyi xel beneen liy wane ne bëgg sallallahu alayhi wa sallam lu mënta ñàkk la farata la ci ñun ñi gëm yàlla waxuma sax farata waaye dafa doon cosaan wala charte bu mënta ñàkk ci sart yi tax jullit bi ak ngëmam mat ak ngëmam mat sëkk li ñuy tuddee usulul iman bëgg sallallahu alayhi wa sallam bu wér da caa bokk da caa doon cosaan te loolu li koy firndeel mooy xadis bi Cheikhaani imam Buxaari muslim nett li ak Nisaay dégg nga Ibnu Maaja ak ñeneen ñu bari nettikati xadis yi wax nañ ko andi nañ ko sallallahu alayhi wa sallam wax ne kenn ci yéen du mën a gëm li feek man mii di yonente bi sallallahu alayhi wasallam gën a lu ma ko boppam wala gën a lu ma ko baayam bi ko jur gënal ko ay doomam gënal ko nit ñëpp gënal ko nit ñëpp mu gën maa bëgg ci ci ñëpp feeg demagul ba àgg foofa ak ngëmam du mën a mat dëggi-dëggi mat laa yuminu ahadukum xatta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wannaasi ajmain ci riwaaye boo boo xam ne sax dégg nga imaam Nasaayi moo ko nettali foofa dafa giiñ saa dafa giiñ dafa giiñ walladi nafsi bi yadihi laa yuminu ahadukum xata akuna ahaba ilayhi bi xadis bi jeex giiñ naa ci yàlla mi nga xam ne sama loxo sama sama bakkan mi ngi ci kàttanam maanaam moo ko yor kenn ci yéen du mën a gëm mukk di feeg gënu maanaam gën a lu ma ko ndayam wala gën a lu ma ko baayam gën a lu ma ko ay doomam gën a lu ma ko nit ñëpp maanaam mu gën maa bëgg ci ñëpp rek beneen bi ci des ku ñu Abdullah ibn Hisham dafa wax ne dañoo mas a toog ak sallallahu alayhi wa sallam ak Seydina Omar yenn saa sallam téye ci se ci loxol Seydina Omar nee na Omar ne yonent bi yaa rasulallah yow de yow yow mi nga xam ne yow la yàlla yónni ci ñun yow de ya yaa ma gënal lépp lu mu mën a doon yaa ma ko gënal ba mu des sama sama jëmm ji maanaam sama bakkan bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko déedéet giñ naa ci yàlla mi nga xam ne moo yore sama bakkan doo mën a àgg mukk ci dayoo ngëm li feeg gën a lu ma la sa bakkan boobu yow Omar li feeg gënoo maa bëgg ci sa bakkan boobu wala sa jëmm jooju Omar ne ko fa innahu al aana la anta ahabu ilayya min nafsi léegi nag yaa ma gënal sama bakkan fuuf ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ne ko al aana ya Omar ok yaa ngi soog a ñëw nag kon bëgg yonent saa sallam foofu la toll loolu day wane ne lépp sart la min suruuti min suruuti kamalil iman aslun min usulil iman cosaan ju dëgër la ci cosaan yi tax gëm yàlla jullit bi mën a mat mën a àgg ci dayo li ma wax ci aaya alquran bi ci suratu tawba ak hadis yooyu ma nett li yépp cheikhul xadim da koo firndeel ci wenn bayit ci xasida goo xam ne mi ngi ko tënk aoudu billahi min alsheytan irrajim muy aoudu billahi min mayli li geyri rida bi xasida gi jeex dafa ne yaa man lahu l amru kun lii waxmini abada wa salli dëban ala man xubbuhu furida ala man xubbuhu furida maanaam xubbuhu farida yow yàlla yow mi nga xam ne yaay borom lépp yaay borom mbir maa ngi ñaan nga nekkal ma te aar ma ba faw te nga dolli xéewal ak teraangaak barkeeg lépp ci yenente boobu nga xam ne sama sang bi nga xam ne bëgg ko farafal suñ tubaab quoi bëggee saa sallam farafal kon li ma waxoon léegi ne li tax bëggee saa sallam di farata mooy day dugg ci biir bëgg yàlla te bëgg yàlla alimaam Xasaali ci al Ihya ci rub'ul munjiyaat bunt yi nga xam ne da ci wax al mahabba te yaatal ko lool moom itam day wax ne bëgg yonent bi sallallahu alayhi fekk ci bëgg yàlla lay wax bunt bëgg yàlla la ko tuddee ak sawq sopp di ko namm di namm yàlla ak rida di gërëm yàlla mu ne te bëgg yonent bi day wax ba agsi foofu mu ne te bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ñu sant la maanaam lu ñu taamu la lu mënta ñàkk sax nag comme ni ñu ko waxee ci lee weesu mu ne lu tax moom Xasaali mu ne li annahu aynu xubbillahi taala li anna xubba rasuli salaa sallam aynu xubbillahi taala nee na ndax bëgg yéen salaa sallam mooy jëmmi bëgg yàlla mooy jëmmi bëgg yàlla daan ne ndax li anna maxbuubal maxbuubi maxbuubun wa rasulul mahbubi mahbubun loolu gars yi di jàngale ci maanaam riyaadiyaat matamat naan sa xaritu xarit sa xarit ak sa noonu xarit sa sa noonu la sa soppeb xarit sa soppe yooyu moom la wax mu ne ndax lan soppeb soppe soppe la war a doon soppeb soppe nee na soppe la war a doon mu ne ndawal soppe it soppe la war a doon te salaa sallam doon na ñaar yëpp ci borom mooy xabibullah mooy rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax mu ne foofu kon ma ne ginnaaw bi xasaar yi waxee loolu bàggal ma ne kon ku bëgg yàlla te dëggu ci bëgg ga faw mu bokk ci ni ngay feeñale sëg bëgg yàlla ak ni nga koy firndeele mooy nangoo topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soppeem bii ak bëgg ko ndax bu ñëwee ci alaamaat dana dana dana wane dana gën a leer ak bëgg ko ngir ñu xam ne yow mii woote gi ngay woote bëgg yàlla dëgg la ci yow ndax yahud yi ak nasaraan yi dañ doon woote ne ñoom dañoo bëgg yàlla yàllaay seen soppe ñoom ñooy soppe yàlla ñooy sax doomi yàlla far du garaaw yàlla nett li ñu ko wa qalat al yahudu wa nasara nahnu abnaau llahi wa ahibaau ñun ñooy doomi yàlla yi ñun ñooy soppe yàlla yi su borom tontu leen ci ali imran qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim loolu kon mooy ne su ngeen di woote ak bëgg yàlla wane ne yàlla da leen a bëgg wala yéen da ngeen a bëgg yàlla ñi ngeen koy firndeele mooy ñëw leen yéen yéen saa sallam nee leen waxal yahudi ak nasaraan yi ne leen bu fekkee dañuy wax ne dañoo bëgg yàlla te muy dëgg ci ñoom nee leen ñëw leen ngeen topp ma bu ngeen ma toppee rek yàlla dina leen bëgg te dina leen jéggal seen i bakkaar moo tax Sëriñ Xadim wax ne rajaau xubbillahi maa bu'di rasul safahatun maa gururin wa gufuur nee na di woote ne da ngaa bëgg yàlla ak koo mën a doon daraja joo mën a am ngay woote ne bëgg naa yàlla ba noppi bañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne loolu ak dese la ak waru la xol bu sàggan daan na inna mahabbata al ilahi la tunaal illa bi xafwi al mustafa baabi nawaal nee na ndax bëgg yàlla kenn mënu koo am ci lu dul xeeñtu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak bëgg ko kon loolu imam Xasaali wax na ci lu am solo nee na mahabba kenn ku ne mën nga koo woote fi ne Sénégal bii ak réew jullit ñi toujours nga dégg ku naan man soppeeb nabi laa soppeeb nabi soppe nabi yi ci ne si saa sallam bat nay fànn loolu de waaye ndax ñu ngay jëf ak a wax ak a fas luy firndeel ne ñoom ay soppe nabi lañ imaam Xasaali nee na woote ne bëgg naa yàlla ak bëgg naa yonent bi ne loolu yomb na lool yaalam an al mahabbata yadda'iha kullu ahad wa ma ashala wa ma ashala ad da'wa lan moo gën a yomb rek nga naan bëgg naa yàlla ak bëgg naa yàlla ak bëgg naa sëriñ bi mu ne waaye nag wa maa ahaz al maana la jafe dëgg-dëgg nag mooy bëgg googu feeñ ci yow mu am firnde mu ne te nit ki su moytuwut ci woote gi muy woote bëgg yàlla ak woote gi muy woote bëgg yonent bi ak bëgg sëriñ bi ak bëgg gaa yu baax yi su moytuwul dëgg-dëgg ak waru mën na ko ca fekk ak waru mën na ko ca fekk ndax seytaane da koy talbiis ba kanam da koy war fekk mi ngi woote bëgg yàlla ak bëgg yonent bi ba moom jàpp na ne ku xas bëgg yàlla wala nga bëgg yonent bi rek da ngay tëdd rek lu la neex def waaye doo jëf wala ngay wax wala ngay doxe noo xam ne mooy firndeel sa bëgg yàlla ak sa bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak bëgg sëriñ moo tax seytaane da ciy jaare di la ci talbis mooy di la jax-jaxal di la wan ne bëgg gi rek doy na ma xaam bu bëggee yàlla doy na bu bëggee sallallahu alayhi wasallam doy na bu la neexee sax nga bañ a jaamu yàlla bu la neexee nga bañ a def waa fekk na loolu ak la am dëgg-dëgg bokkut wuute na moo tax mu ne da ngaa war a natt bakkan bi la bakkan bi woote ne bëgg na yàlla bëgg na saa su da nga ko war a seet imtixaan ko bil alaamaat ci ay mandar ay firnde da nga da ngaa war a mutaalaba bakkan bi sàkkonteeg moom laaj ko albarahin ay lay ak ay tegtal yu wane ne moom mii bëgg gi muy woote dëgg la ci moom mu teg ci ne te te mahabba bëgg yàlla ak bëgg sallallahu alayhi wa sallam te muy dugg ci biir rek imaam Xasaali nee na garab la gu teey goo xam ne cosaanam dafa dëgër bànqaasam ne ci asamaan am meññetam war di feeñ ci xol bi ci xolub ci bëgg di war di feeñ ci làmmiñam di war di feeñ ci ay cëram mu teg ci ne te jeexit yooyu bàyyi ko ci mahabba wala ci garab googu gu teey googu te mooy mahabba dafa war a tegtale ci kaw xol bi ak cër yi maanaam feeñ bi muy feeñ ci xol bi ak làmmiñ bi ak cër yi dafa war a tegtale mahabba gi ni saxar saxar di tegtale sawara wuy takk ak ni nga xam ne noonu la meññet di tegtale garab bu am meññet kon loolu mooy alaamaat yi yii ci tax ñu ñu ñu ñu tànn mawduu bi war ko waxtaani kon kon imaam Xasaali ubbil nañu bunt bi ñu war a jaar kon ci tomb xëy na ñetteel bi ngir waxtaane nag dëgg dëgg nag mandarga yi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax nee na garab la ko misaale boo xam ne ni ko alxam waxe ci suurat ismaan ibrahim muy muy bi bi bi muy misaal kalima tayiba ka sajara tayiba asluha thabit wa faruha fi sama tuuti ukulaha kulla xayn bi sabia waaye mu ne moom nag mahabba noonu la mel bu bu nekkee ci xolub bëgg sallallahu alayhi wa sallam bu nekkee ci sa xol dafa mel ne garab bu sax ci sa xol garab googu nag war naa meññi war naa am ay jeexit yoo xam ne day tegtale ne yow mii am nga garab bu sax ci xol bi te mooy mahabba gi mi ci xol bi ni nga xamee ne tey bu sawara amee bu sawara tàkkee bu ñu séenee saxar suy suy jóg ci kaw ñu naa feede sawaraa nga bu ñu séenee lu am am am meññeen mu wadd même bu gisul garab gi mu jóge sax dinañ naa meññeen bi da ci garab la jógee noonu noonu sët bi bi bi muy jàngale ci ci ci téere tawxid yi tawxid maanaam day tegtale yàlla comme comme maanaam baara ni muy tegtalee ci ci maanaam baayir aw yoon boo ci jaaree dox di dox ba gis loo xam ne dafa jóge ci ak jur wala wala wala ci ci xar wala ci ci ci béy ne pare da da nga mën a xam ne lii kat xar mee ko fi bàyyi wala nag mee ko fi bàyyi wala fas mee ko fi bàyyi boo gisee ab tànk da nga mën a xam ne kat fii nit a fi jaar jeexit yooyu nag lay misaal ci ne kon war naa am di tegtale ne kii ku bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la kon yéen ñooy mandarga yi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yu bari la nag doonte ci jotaay bi yëpp lu ci xaj xam naa ne tënkoon nañ ci lu mat fukk ci ab laat waaye xam naa dañuy tudd yenn yi ak lu ci waxtu yu maye ndax mën a àgg ci yeneen tomb yi ci des su ma delloo ci wax yi borom sifa moom gëstu bi dañoo sukkandiku ci moom ci lu bare bari ndax da ci indi lu yaat moom xaajin yaat ci ci bëgg sallallahu alayhi wasallam ak jeexit yi ak mandarga yi dafa wax ne ku bëgg dara ak lu mën a doon da nga ko gënale ci leneen lu dul moom maanaam da nga ko da nga ko wane ci sa lépp te it ki nga bëgg ak li nga bëgg it waxtu wu nekk da ngay sàkkoo dab bànneexam ak dëppoo moom ci la mu bëgg su fekkee bëgg gi dëgg la su fekkee bëgg gi dëgg la ci yow mu ne bu deewul noonu rek lam yakun sadiqan fi hubbihi wa kaana muddaiyan li Ghazali waxoon kon nekkul ne bëgg gi muy woote dëgg la ci moom waaye da koo woote rek bu fekkente ne amut jeexit amut luy wane ne moom mii kat mi ngi gënal bànneexu ki mu bëgg ci bànneexam moom loolu su mandargee dama ko danañ ci ñëw moo tax borom xam-xam ba shaa'ir ba waxoon ne man yaddaci xubba annabiyi wa lam yufat min hadiyihi fa safahatun wa huraam ne kuy woote bëggeel saa sallam di ko woo man bëgg naa nabi man maanaam soppeeb nabi laa nangam nangam te duñ la gis mukk ngay jariñ ci njubam gi ci sunnaam duñ la gis ngay roy yàlla saa sallam ci sunnaam nee na kooka bëggam googee du bëgg de safaaha la ak dese la xel mu ma tudd la wa huraa waxi neen rek la caaxaan rek la waaye du dëgg lu mu ci teg fal xubb awalu chartihi wa furudihi in kaana sidqan taatun wa wafaau nee na ndax bëgg dëgg dëgg bu fekkente ne dëgg la la ca jiitu ci ay sartam ak farataam bu fekkee dëgg la mooy topp ka nga bëgg ak matal sa diggante ak moom ci la ngeen seq noonu it la ko borom xam-xam yu bari indee nga xam ne bu ñu demee ci bayit yi nga xam ne ñenn ñi wax nañu imam Shafii moo ko def ñi ci des bu dee imam Xasali ci Ixya day wax ne Ibnul Mubarak moo ko def donte am na wuute ci waxin wi waaye maanaam men la bayit yu siiw la xam nañ ko taasil ilaha wa anta tuzhiru xubbahu hada maxaalun fi lqiyaasi badiu keneen ki ne hada la amri fi lfiaali badiu boobu mooy nett lit imam alxazali mu ne ibnu mubarak moo ko wax law kaana xubbuka saadiqan la ataatahu in almuxiba liman yuxibu mutiu fi kulli yawmin yabtadiika bi nicmatin minhu wa anta li shukri dalika mudiu nee na yaa ngi mooy yàlla ba noppi di wax ne da ngaa bëgg yàlla mu naa loolu kay lu mënta nekk la lu yéeme loo xam ne xel mënu ko nangu sëg bëgg yàlla bu dëgg woon kon nga topp yàlla ndax nee na ki bëgg faaw day topp ki mu bëgg innal muhibba liman yuhib mutiu te yàlla moomu nag ngay mooy te woote ne bëgg nga ko waxtu nekk mi ngi lay baaxe ay xéewal yu tukkee ci moom nga war koo sant waaye ngay sànq xéewal googu ci loo xam ne neexu loolu kon day wane ne la saayir bi waxoon rek ne ki ne bëgg naa yonent bi tey jëfandikoowul sunnaam bëggul sunnaam royu ko mënuñu wax ne mënuñoo nangu ne bëgg na yonent sa sallam ñoom ñooñ ñëpp na seen wax yooyu sëriñ bi tënkal nañu ko ci wenn bayit ci muqaddimaat te mooy nahaani ya xubbu llahi nicma almuhayminu an ilmayli amma xtiira walxaqu aqmanu Cheikh Xadim nee na bëgg gi ma bëgg yàlla te muy dëgg ci man moo dox sama digganteeg may jeng jëm ci leneen loo xam ne bokkul ak li ma yàlla tànnal ci neen ci caaxaan déedéet ginnaaw bëgg naa yàlla su dëgg ci man rek bëgg gi moo dox sama digganteeg nahaani baat nahaani mooy tere na ma tere na ma xubbullahi bëgg yàlla may jàng jëm ci li nga xam ne moom la ma tànnal te nee na sax alxaqu ak man dëgg moo gën a yey nag te te dëgg nag mooy li yàlla bëgg mooy jëfe digal ak bàyyi tere kon ki bëgg sallallahu alayhi wa sallam te muy dëgg ci moom faaw mandarga yi bëgg saa sallam dina feeñ ci moom mandarga yooyu nag yan la bokk na ci ci jiitu mooy di ko roy di roy yonent bi salaatu di jëfandikoo sunnaam di topp ay waxam ak ay jëfam di jëfe ay ndigalam di bàyyi ay tereem di jéem a melowoo ni ko yàlla def ni mel ci ab yaram ay tegginam teggini teggin nag fànn yépp ngay jéem loola ci waxtu wu jafee waxtu wu yombee waxtu boo sawaree waxtu boo taayalee yépp nga di ko jéem a melowoo di ko jéem a roy loolu moo jiitu ci kuy woote bëgg sallallahu alayhi wa sallam pour ñu xam ne bëgg nga ko faw nga di ko jéem a roy ndax roy dafa mënta ñàkk ndax moom bu fekkonte ne roy sax mën naa ñàkk kon moom sallallahu alayhi wa sallam yàlla du ko du ko du du ko royloo yeneen yi ko jiitu woon ndax tudd na ay yeneen ba ñu jeex mu ne ko ulaayika alladina hada allahu fa bi hudayhu muqtadi ñooñu ma tudd ñooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla jubal kon royal ci seen jub te ñooñu ñooñu mu tudd moo leen gën ni mu leen mujjee ñëwee noonu la leen gënee waaye teewul roy tekkiwul ak afdaliya nit ki da nga ko roy fekk yaa ko gën ci lu bari waaye am na am na jikko joo seetlu ci moom joo xam ne mën naa am bu amee ci itam des na nga bëgg nga nga nga bëgg mottuli tax nga di ko roy loolu day am al iqtida te lu am solo la ndax dana tax nit ki defaru bu ñëwee ci meññeet yi bëgg ko sallallahu alayhi wasallam li muy jur danañ ñëw ci roy googu lim ñuy jural jëfandikoo sunnaam itam noonu yooyu yëpp bu ñuy joxe misaal ci sëriñ bu mag bi dana leer bi ci topp ci maanaam mandarga yi mooy jéem a jikkowoo ay jikkoom moom sallallahu alayhi wasallam da nga ko roy jëfe sunnaam topp ay waxam topp ay ndigalam bàyyi ay tereem waaye itam nga jéem a melowoo ay jikkoom itam nag loolu nag day laaj kon nga jéem a jàng siiraam ki jàng siira te siira bind nañu fi lu loo xam ne doy na sëkk ci ci lu mat a xam borom xam-xam yi netti nañ ko ci langue yu bari tey jii boo demoon ci internet bi rek bu la bu la neexee ñu man laa firil siiratu ibnu ishaq wala ibnu hisham wala sifa bi bay wax wala yu mën a doon nga mën koo diglu ba mu jeex bu la bu la neexee ci wolof ñu dégg ñu firil la ko ay borom xam-xam def nañ tarassof ci ci ci ci réew mi firi siira ci làkki wolof ci làkku tukuloo làkku séeréer làkku leneen kon xam xam kon lay amut kon lay amut bu defee te nit ki mënoo ko roy te xamoo ko faaw da ngay moo tax suñu musaaka ba muy wax ci wolofal suñu musaam ba dafa ne ngir gaa yu baax yi xamle leen te woy leen dana waral seeni saxaaba roy leen ñoo tax ñu ànd ak ñoom roy leen kon roy xamle gi ak jàngale gi ak yeete gi ci seen siira li ñu ci jublu mooy pour ñu mën leen a xam ba mën leen a roy sallallahu alayhi wasallam nag mooy ki nga xam ne moom siiraam moom jàng ko daa mënti jàkk ndax roy ko dafa mënti jàkk ndax suñu borom moo ñu ko digal wax laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun xasana bu ko defee kon jéem a jàng siiraam ba mën a jéem a jikkowoo ay jikkoom waaye jéem a jikkowoo jikko yooyu itam bokk na ci li ci li la ciy dimbale mooy nga fexe ba setal sa bopp setal sa bakkan sa xol ci bàkkaar moo xam bàkkaar bu nëbbu la wala bakkaar bu feeñ la loolu moom la waxoon moom sallallahu alayhi wasallam sayyiduna Anas ibn Malik ne ko yow sama ndoom soo ko manee bul xëy mukk wala nga gont mukk di bàyyi ci sa xol bi riche ak mbañeel wala ak ak ak ak kiñaan wala ak soxor wala riche dafa am yu bari lépp luy niru jikko ju bon daal fexeel ba bul xëy wala nga gont di ko gis ci sa xol di ko ci bàyyi di ko ëmbal kenn ci sa mbokki doomu aadama yaa bunayya in qadarta ala an tumsiya wa tusbiha laysa fi qalbika ghishun li ahadin fafal na nga ko def neen daan ne ma moom anas mu ne ma mu mu mu daal ciy teg ne ma te loolu dafa bokk ci sama sunna te ku dundaa te ku dundal sama sunna mel na ne bëgg na ma xoolal moo ko waxat salaat ku dundal sama sunna bëgg na ma te ku ma bëgg maag moom ñooy bokk nekk àjjana wa dalika min sunnati wa man axyaa sunnati faqad axabani wa man axabani kaana ma'i fi ljanna rawahu at-tirmisi wa tabarani kon jéem a jikkowoo jikko salaa sallam dana tax dana wone ni kii ku bëgg salaa sallam la ñetteel bi mooy bëgg gi nga bëgg salaa alayhi sallam nga firndeele ko ci dëppoog sariyaam dëppoog aw yoonam ak sunnaam gënal la dëppoog sa bànneexu bakkan ak li neex ci sa xel rek ak sa xol rek maanaam lépp looy def ak lépp looy wax ak lépp looy doxe nga jël ko natt ko ci àndaaru sunna àndaaru sharia doonte sa bakkan bëgg ko wala neexul ci ci ci maanaam sa sa sa sa xol sax waaye nga ne ah lii kat moo dëppoo ak sunna kon naa gën naa jël lii nga xam ne mooy li sunna jàngale te te te da nga digle ko ma def loola loolu des na ci xame ne yow mii bëgg nga sallallahu alayhi wa sallam te loolu alxuraan moo ko jàngale mooy bi muy tàgg saxaaba yi rawatina ansaar yi nga xam ne dañoo féete madina muhaajiriin yi ñoo fekk si leen ñu dalal leen jox leen lañ gënoon a bëgg jox leen xaaj seen alal jox leen xaaj seen i kër jox leen dem ba àgg ci sax ni leen suñu soxnaa ngi nii ku ci am ñaar ñaar mbaa ñett mbaa ñeent soxna yaa ngi nii xoolal koo ci bëgg ñu may ko baatam mu iddawu nga denc kooku isaar foofu la mën a yem والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويوسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة kon ki àggul ki àggul foofa ci bëgg sallallahu alayhi wasallam ak bëggam bés da ngay dem ba àgg foo xam ne bëgg yent bi nga xam ne day dugg ci biir bëgg yàlla bi ma waxoon da lay jaral li nga yor sa sa mbokkum jullit soxla ko wala sharia soxla ko wala lislaam soxla ko nga jël loola jox ko ko toog te yàlla tax waaye nga fexe it ba bànneexu sharia ak ak lii sariya bëgg ak lim santaane gënal la sa bànneexu bopp ak sa bakkanu bopp loolu ci bëgg sallallahu alayhi wasallam ci mandarga yi ci la bokk ñeenteel ba itam bokk na ci nga bu ñu delloo ci bi qaadi ayaat di xamle mahabba bokkoon na ci dawaamu dikri lil mahbub mooy nit ki di saxoo tudd ki mu bëgg fi ne ñun ñii rek maanaam ku ci bëgg ab fokkat rek wala jaay yooyu la ci gis yi fu mu foog kooku lay waxtaane waxuma sa waxtaane ko mais da koy roy sax fat ci bu dee ñi nekk ci football ba da da xale yi dañ leen roy ba roy leen ci ni ñuy watoo am na ko xam ne tey boo gisoon ñëpp ñu watoo rek du du du aaji ngay laaj ba xam kii kan lay roy soo xamee ju maanaam kooka rek laaj ba da ngay daal di mën a xam ne diw sàngam lay roy te fu mu toog it kooku lay waxtaane bu dee ca làmb ji noona bu dee ca leneen noona bu dee ca leneen noona sallallahu alayhi wasallam nag kon ki ko bëgg fu mu toll da koy tudd fu mu toll da koy waxtaane day bari lu mu koy tudd fa man ahabba shay'an aksara min dikri yi saa bu bëggee dara rek faaw da nga da nga ko tudd lu bari loolu nag mën naa am ci di julli ci moom ak di def mat ak ak ak maanaam aslaatu dégg nga wa taslim ak yeneen ak yeneen gu wax di waxtaane ak baaxal beneen ba yooyu yëpp dinañ ñëw ci ni ko Seexul Xadim appliqué ni nga xam ne noonu la ko jëfandikoo moom ci ak dundam juróomeel ba mooy ku bëgg sallallahu alayhi wasallam faw nga di ngay ngay namm gis ko ak dajeeg moom ndax ab soppe waxtu wu nekk sa xel day ne ci moom nga di ko xalaat te boo sañoon waxtu wu ne sax sa sa sa say bët di tege ci sab soppe sab xol di di di di xool sab soppe ngay nekk sa sa soppe ki nga bëgg moo tax saxaaba yi ridwanullahi alayhim dañ cee joxe ay misaal yu kawe ci bëgg yonent bi ak di ko namm ak bëgg koo gis donte ñu ngi doon dund ak moom borom sifa mi ngi wax mi ngi nettali xadisul ashari yi yooyu bu ñëwee madina dañ daan maanaam woyant woy di wax naan gadan nalqa al ahibba muhammadan wa sahba di wax ne ëllëg la ñuy dajeeg soppee muhammad ak sahaaba ya xëy na dinañ ci ñëwaat ci ci bu bu buñ accès ci tomb maanaam misaal yi ñuy joxe ci saxaaba yi ci seen bëgg sallallahu alayhi wasallam dinañ ci dellusi kon sopp yonent bi ak maanaam di ko namm ak di di bëgg gis ko ak ziyaare ko ak sax gis ko sax jëxëram lii mën a nekk la àddina waaye am na koy lu lu ma damuy laaj am na ci góor nit yàlla yoo xam ne bëgg a gis bëggoon a gis sallallahu alayhi wasallam rek jaral na ñu fase àddina ak la ci biiram bàyyi lépp te suñu jàmbaar ji ci la bokkoon te ci ñi ci jiitu kenn jiitu ko ci sax nga xam ne jaayante géej géej tukki beeg napp yeeg yépp ak li jiitu loolu lépp bokkoon na ci rek nay jonjoog sallallahu alayhi wa sallam di toog ak moom di wax ak moom ba yàlla defal ko loola fii ci Tuubaa ji lu jiitu muy dem ci géej gi kon ak bëggam sallallahu alayhi wasallam noonu foofu la tolloon mën naa jël ku mel ne Bilal ibnu Rabax bi muy sukuraat toll ci war a dem soxnaam day day jooy di yuux naan waa xusna waa xusna ay suma jëm ay ma maa ngi woo sama njàqare Bilal ci biir sukuraat si da koy dog ne ko bul wax waa xusna waxal waa tarabaa waa tarabaa wool mbégte wool xol bu sedd daal ne ko ndax ghadan alqal ahibba muhammadan wa sahba ëllëg rek sama guru rod rek moo tee ma dajeeg soppe ya muhammad ak sahaaba yi waaw kooku de sopp na yonent bi lool ba mi ngi jënd àddina soxna ni mu neexee ci ci xol mu muy mu wasoon si nekk sawet di di la jooy nga naan ko déedéet bu boo nekkee ci naqar man maa ngi ci mbégte man ndax leer na ma ne maa ngi jëm ci yoonu dajeeg sama soppe ba sallallahu alayhi wasallam ak sama soppe ya asahaba ridwanullahi taala alayhi beneen bi ci topp mooy juróom-benn bi mooy ci màndarga yi mooy màggal yonent bi ak wekk rawatina boo déggee aw turam ndax sallallahu alayhi wasallam buñ ko tuddee ngay ku ko sopp nit lu mu sopp buñ ko tuddee ci ci ci maanaam ci wetam faaw mu am faaw mu def infial faaw mu am réaction nit ki lu mu bëgg dëgg-dëgg soo doon dox nii tey jii rek ci maanaam réew mu Amérique foo xam ne ay tubaab rek fa nekk su ñëpp laa bu yàgg rek nga nga jékki-jékki dégg ñu daan tudd maanaam Cheikhul Khadim faaw da nga taxaw. teg waaw xoolaat ba xam ki ko tudd ku mu doon fu mu jógee lan moo tax mu tudd lu tax dafa nekk sa xol koo bëgg moo tax ki ki ki bëgg yonent salaa sallam war na fu ñu fu mu déggee tur salaa sallam rek mu mu yëg ci xolam hayba hayba ak ak rag ak ak tëy waxuñu nag mu ma mu di ko màggal wala mu di ko di ko fonk ba teg ko place yàlla déedéet déedéet sax moom moom saxaaba yi sax bu misaane àgg foofu ci moom da leen di dalal man kat du ma kenn ku dul doomi soxna su nekkoon fii daan lekk ay seel donc moom la te hayba gi ko yàlla jox ak jalaal gi daana àgg ci ñoom seen naa ci boppam sax ci ay waxam da koy misaal daa nga ñëw sukk ci kanamam bëgg a wax doo mën a wax doo ko mën a xool soppoon nañ ko rag maanaam ak ragloom ak ak jalaalam àggoon na ci jàkkaarloog moom di ko fixé ci bët sax mënuñu ngir bëgg waaye di leen dalal waaye nag ku ko bëgg ku nekk war ngaa roy saxaaba yi ci loola loolu itam ci la bokk màggal ko ak wekk ko ci fànn yëpp nag loolu dafa lu yaatu la wekk gi teg ko ci ci lépp saa buñ ko tuddee nga jox ko cër bi mu laaj julli ci moom ndax nee na albaxiilu man zukira maanaam man zukirtu indahu fala bi salli alayya nee na ki nay dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xam ne buñ ma tuddee fa moom du julli ci man saa su ne kooku mooy ki nay te julli ci moom ñu tudd ko nga julli ci moom day wane ne maanaam fonk nga ko yëg nga ko màggal nga ko ndax ndigal yàlla inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima beneen bi ci des mooy ku bëgg sallallahu alayhi wa sallam faaw nga bëgg faaw nga bëgg lu laal ci moom faaw nga bëgg ki mu bëgg moom sallallahu alayhi wa sallam faaw nga bëgg it ki bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee bëgg nga dëgg la da nga bëgg ay saxaabaam da nga bëgg ay aalu baytam da nga bëgg aw xeetam hada xadimuhu radiallahu anhu fi saxaaba yaqul ahibati yaddaareeni ahibati yaddaareeni sahbu nafa bihim ilahi li gayri kulla man laysa yabraw sëñ tubaa moom bokk na ci li muy firndeele bëggam salaa sallam mooy wane ak bëggam saxaaba yi samay soppe àddina ak alaxira samay soppe àddina ak alaxira mooy saxaaba yi salaa sallam yi nga xam ne ci ñoom la sama boroom dàqee bépp noon ak bépp ke maanaam yëfal mu sori ma jëm ci keneen ku dul man waaye noonu ngay bëggee ku yonent bi bëgg ak lu laal ci moom noonu itam nga war a bañee ku bañ yonent bi ak yonent bi bañ wala ku ko ŋàññ wala ku ko bañ ku mën a doon rek ak nu mu ko mën a bañ loolu moom saxaaba yi jox nañ ci misaal yu kawe ñoom itam xare yi daa am rek da ngay gis saxaabi yi boo xam ne day dajeeg bàyyam ci xare bi rey ko dajeeg doomam rey dajeeg maanaam mbokkam mu mbokkal dajeeg bàyyi rey ko kooku doon ab yëfër te du ko faale sax abdullah ibnu abdullah ibnu abdullah ibnu abdillah ibnu ubay ibnu salul day ñaari abdullahi kii doom la ci kii kenn ki saxaabi yu la abdullahi mooy doomi abdullahi ibnu ubay ibnu salul abdullahi ibnu juwi bu ibnu ubay moom xam ngeen ne mooy rasul munafiqina fi madina moo jiite woon naafiq yi ci madina doomam ci ñu abdullahi ci bëggam yonent bi sallam ak ak fonk ko ak fi mu ko teg àggoon na ci ne ko yaa rasulullah bu la neexee sama joxe ndigal léegi ma andil la sama bopp bàyyi fii nga toog bu la neexee léegi ma dagg bopp andi ko faaw sëñ bi fa la ak bëgg mën a yem waaye Cheikhul Khadim mii dem day kenn demul mu des ci ni mu bëgg yonent bi bëgg ay soppeem noonu la bañe noonu yonent bi bañ bu fës xoolal musaylimatul kazzab ni sëñ bi di waxe ci moom noonu boobu nga xam ne da doon woote ak nubuwa wax nañu sax woote na ko njëkk saa sallam di wax yi di wàcc ci moom ba bayen saa sallam tuddee ko alkazzab maanaam ki nga xam ne day nar ki nga xam ne moo dàq nar ba léegi sax bu ñuy joxe misaal ci ku mën a nar dañ naan alkazzabu min musaylama kooku moo gën a maanaam mën a nar musaylama demoon na ba sallallahu alayhi wasallam ne ko maa ngi yow ñun ñaar ñëpp la yàlla yi wax damaa bëgg nga boole ma ci sa yëf yi comme ni Moussa boole woon Haaruna ci da nga nubbu waam nga dem ba bind ko leetar ne ko suuf si maa ngi yow ko bokk da ngay da nga koy xaaj ci digg bi ma moom xaaj bii nga nga moom xaaj bee te day wax min musaylamata rasulillahi ila muhammadin rasulillahi xam nga ci dëgg na fit saa sal ko ne ko min muhammadin rasulillahi ila musaylamata al kazzab inna al arda lillahi yurisuha man yashaau min ibadi wal aqibatu lil muttaqin yow musalima mi nga xam ne yaay fen yaay narkat bi béréb moom wax bi yenn yi dafa tegginuwut waaye yow mi nga xam ne yaay yaay ci mën a nar maa ngi lay xamal ne assalaamu ala man ittaba al huda waaye xamal ne suuf si ngay wax naan maa ngi ko bokk yàllaa ko moom moo koy jox ko sob musaylamatu moomu xam ngeen ne ci jamono Abu Bakr Siddiq ginnaaw sallallahu alayhi wasallam ci lañ ko rey wax si mi rayoon Hamza ibn Harb moo ko rey ca maarakatu al yamama ci 633 di ati fukk ak ñaar ci di ati gàddaay waaye xoolal ni ko sëriñ bi di di di maanaam melale ak ni muy feeñale mbañeel ci moom sëñ Tuubaa waxe na ci musaylama noo xam ne néewaa na nga gis mu binde ko noonu ci kenn dalla musaylamatun xiina jaara man fi lsama wal ard la yujaara dillata man wasta almala tagawata wa baala uryaanan wa jahran darata la ilaha illa kenn mos ko dégg damma wa qaada nafsahu lilxajali wa faatahu karamu xayri mursali nee na musaylama torox na ba mu léewtoog ki ne ci asamaan ak suuf nga xam ne kenn du léewtoog moom toroxtaange ak musaylama sëñ bi nee na mi ngi mel ne ku ñëw ba ci digg mbooloo mu bari nga def yaramu neen dem fa def def fa dem àll def yaramu neen def fa dem àll tuur fa ndox def fa leneen nag baatub darota bi mu jëfandikoo fii rek darota rek ku ko ko firi woon ci wolof mu doon lu ñàng waaw waaye mooy génne ngelaw loo xam ne dafa ànd ak kaddu bu kawe ñëpp di ko dégg loolu lay tekki darata waaw axraja riixan min duburihi maa sawt suñ tubaab noonu la misaale musaylamatul kazzab daan ne ku torox a ngoog ndax toroxtaangeem googu moo ko wommat jëme ko ci gàcc teraange yéen saa sallam xamu ko faat na ko dem ba ci kanam mu ne alam tara anna allaha axsa bi dikrihi musaylamatal kazzab iz jaa wa shabbaha lam yuflih alkazaabu ay musaylama udxukatan li muslimin wa muslima daal ne sa yatru sa yatruduhu abdulilahi wa jaaruhu xadimu rasulillahi sabdan musafaha kooku moom ay mbiram lee doy na waar daan wax ne xanaa gisoo ne yàlla dafa dafa toroxal musaylamatul kazaab ci alquran ndax da doon jéem a roy alquran di di wax naan dégg nga wallaylu daamisu wa dibul haamisu maa qataat asadun min rabbin wala yaabis wal fiilu mal fiilu wal filu wa ma adraka mal filu dégg nga lahu zallu mun waxi caaxaan yoo xam ne kenn xamul lu muy teg di sos naan day roy al alquran ci wal aadiyaat yeeg nangam ak nangam al imam al imam abou bakr al baqlani bi muy nekk li musaylama ba ak ci ay ak ci ay waxam dafa ne waxi musaylama sax daanaka daanaka jurul taxaw ndax du wax ju am solo li muy wax ne da ci da ci roy alquran doonte réeral na ci ay nit sànq na ci ay mbooloo itam nee na lu ñàkk solo la saxaafa bi lu ñàkk solo la waaye nag dañ koy nett li mu ne waaye nag dama koy nett li ngir ki koy déglu yéemu ci jàng ci itam xam ne suñu borom ndekete jay na ab jaamam waaye itam su ko jayee itam lu jay gi gën a bari ci toroxtaange rek la ko jëmi ak di ko gàcceel ba suñ tubaa ne gisoo ne yàlla gàcceel na ci alquran musaylamatal al kazab bi nga xamee ne nee naay day jéem a roy alquran di jéem a niróoleeg moom moo tax mu ne waa jooju maanaam narkat boobu ay musaylama amul lam bëggoon texewul de waaye mujj na doon ku ñuy reetaan ndax ki ñëw ba ci digg mbooloo nga def yaramu neen def fa dem àll tuur fa ndox def fa loolu mu wax ba noppi nee na kooku uddu xuuka ku ñëpp yi reetaan la ku ñëpp di sayiti la di nga di ko yëjët waaye rawatina bépp jullit ak bépp bépp jullit bu góor ak bépp jullit bu jigéen daan ne man mii de di jaamub yàlla Seex Xadim di dëkkandoom di xadim rasulillahi du ma ko bay fenn moom dégg nga musaylama fu mu jaar ma dàkku fu mu jaar danaa ko dàkku dàkku goo xam ne dana ko deseel ba mu doon safi sa yatruduhu wa abdul ilahi wa jaaruhu xadimu rasulillahi fadl musaffiha te nii mu jëf te nii mu jëflanteeg musaylama la jëflanteeg abu jahlin ngir bañ gi bañ salallahu alayhi wa sallam aba abu jahlin wa naadaahu alqalib bi duq mararatan biha tansa alxalib su tubaa nee na abu jahlin daa bañ wooteeb salallahu alayhi wa sallam feeñal ak noonoom yàlla di ko wommat ba dugal ko ca xalib ba ca kàmb ga ca badar keroog ne ko mosal tey mbëggalum bàmmeel mosal tey daani malaayika yoo xam ne tey dana wex ci yow ba fàtte loola meew mu neex ma nga nampoon ci sa ñaari way jur ba ba sa way jur di nga wu jigéenu tan sal xalib daan ne wa baana jahlan abu jahlin fa allamahu man ihtada fa atalla saaqa waxturima law kaana saalima maaqulin la saalamahu qabla iltihaabi lada xarbin arad wa jama laakinahu jarrahu nisfu ismihi li radan fa xasbu kulli musamman min sumaa usama daan ne abu jahlin dafa réer rek waaye riiram googee moo tax salaa sallam mi jub te xam xamal ko moom ca badar la ko won dégg la ko wane lam ko won ba faagaagal ko bu doonoon borom xel mu mucc kon dana jàmm wax sallallahu alayhi wa sallam balaa xare ba di tàng waaye nee na genn wàllu tur wa genn wàllu tur wa muy jëxl ga réer ga abu jëxl mooy tekki borom réer borom réer saa sama ko waaye turam dëgg-dëgg mooy maanaam abri ibnu mooy dégg nga abri ibnu hisam amr ibnu hisam gaa yi daa ko abul xakam waaye abu jëxl la ko saa daan woo wooye ngir réer gu tar gi mu ne nag genn wàllu tur wa moo ko wommat ba yóbbu ko ci alkane moo tax mu ne kenn ku ne tur wa ñu lay wooyee sëb teer noonu lay toll fa xas kulli musamman min suma suma xam waxtu waa ngi dem xam naa si xam naa tomb yu bari na waaye ñaari ci des rek ma tënk ko ci ci ci ci maanaam ci li nga xam ne moo aju ci wàllu alaamaat yi soog a mujjee tomb bi bi mujj mooy maanaam juróom-ñeenteel bi kon te mooy bëgg alquran ku bëgg sallallahu alayhi wasallam faaw nga bëgg alquran ndax ndax kii di ibnu mas'ud ibnu mas'ud mooy ki nga xam ne moom la sallallahu alayhi wasallam waxoon benn bis ne ko kaay jàng alquran ma dégg mu ne ko ah yow mi nga xam ne yow la jibril di wàcc ci yow di jàng alquran nga dégg nga nga nga may jàngaloo alquran mu ne ko waa dama ko bëgg a dégg ci keneen ku dul man muy jàng suratu nisa di jàng muy déglu ba ba àgg ci fa kayfa ida ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha ala haulaai shahida sallallahu alayhi wasallam di jooy jooy jooy métti ibnu mas'ud moom moo ne bu kenn laaj kenn boppam kurul alquran bu kenn laaj kenn boppam kurul lurul alquran maanaam soo bëggee xam yow fu la yàlla toll ak foo toll yonent bi ak foo toll yàlla seetal noo noo demee ak alquran boo bëggee alquran nee na bëgg nga yàlla bëgg nga yonent bi fa in kaana yuhibbu alqurana fa huwa yuhibbu allaha wa rasulahu moo tax sahl ibnu abdullahi tustari nee na mandargam bëgg yàlla mooy bëgg alquran mandargam bëgg alquran mooy bëgg sallallahu alayhi wa sallam gis nga mandargam bëgg sallallahu alayhi wa sallam nee na mooy bëgg sunnaam mandargam bëgg sunnaam mooy bëgg alaxira mandargam bëgg alaxira mooy bañ àddina mandargam bañ àddina mooy nga bañ cee denc dara lu dul yób looy looy loo xam ne da nga ko yóbbuloo pour ëllëg te mooy nga dëddu ci àddina rek gis nga moom ni mu tënke liñ fi wax lépp tënk na ko far ci wax yu gàtt alaamatu xubbillahi xubbu alquran wa alaamatu xubbi alquran xubbu nabi sallallahu alayhi wa sallam wa alaamatu xubbu nabi sallallahu alayhi wa sallam xubbu sunna wa alaamatu xubbi sunna xubbu alaxira wa alaamatu xubbi alaxira buxdu dunya wa alaamatu buxdi dunya an laa yaddaxira minha illa zaadan wa bulga kon boobu tomb bi ci mujj nag ci ci mandarga yi ñu tënkoon mooy ku bëgg sallallahu alayhi wa sallam faw nga ñeewante aw xeetam bëgg leen yërëm leen di leen laay biir di dox ci seen i intérêt ci seen i njariñ di leen xëccal njariñ di leen jënga jañal lor comme moom saa sallam ni nekk woo te waxoon naa ko ci aaya ba bil muminina raufum rahim xam naa sëñ bi mel na ne waxtu yu sori na la waaye su ma bëggoo bëggee nag jeexal ci ñaari tomb yu mujj yi xëy na moom tënk bu gàtt lay doon mooy ay misaal yu ñuy joxe ci yenn saxaaba yi ni ñu bëggoon sallallahu alayhi wasallam mën nañ ci jël rek Abu Bakar ci góor ñi donte tënkoon naa Omar ak Sidna Ali ñëpp waaye Abu Bakar ak kenn ci soxna yi rek maanaam soxna saxaaba yi saxaaba yu jigéen ñi mu doy misaal Abu Bakar xam nga ne mooy raisu siddiqin mooy ci gën ci jullit ñëpp ginnaaw sallallahu alayhi wasallam moom ci ni ko am sunna wal jamaa jàngale moo ci gën waaye ku ne xam ne digg ma sallallahu alayhi wasallam ci sopp ak ak bëgg gu kawe sëñ Samba daana faral di wax ne sopp Abu Bakr ak Omar ni mu wutee mooy kaan Abu Bakrin yuhibbu Muhammadan ar-rasula wala annabiyya wa kaan Omar yuhibbu ar-rasula Muhammadan xam nga bokkul seen Abu Bakr moom Muhammad la bëgg rek moom bu nekkoon yeneen rek bu ko nekkutoon ak lépp moom daa bëgg Muhammad rek jëmm ji la bëgg Seydina Omar rek daa bëgg yeneen fii doon Muhammad xam ne moom bu amutoon risaala wala dégg nga nubuwa mën naa am du ko bëgg allahu alam Abu Bakr moom dafa am bis mu ne xoolal l'islam ni mu foore ak doon jullit ni mu neexe sa baay bi la jur nga àtt na taxaw loolu abdoulahi mi waxoon ci ginnaaw ci ba bàyyam moom dégg nga maanaam ibnu salul moom abubakar daa wax lu mel noonu dafa ne yéen saa salaam man dey jiñ naa ci yàlla mi nga xam ne moo la yónni ci dëgg abu taalib sa bàyyi tax bi tuub dugg ci lislaam moo gën a dal sama xel gën a sedd sama xol abu quxaafata mi sama bàyyi tuub xoolal lii rek abu quxaafa turam dëgg-dëgg mooy asmaat ibnu amir te mujj na tuub yow ma fàttax la tuub waaye nee na ko abu taalib tuub ndax xam na li sallallahu alayhi wasallam bëggee woon abu taalib doon julit tuub ba xam na ko moom de abu bakrin te bëggu sallallahu alayhi wasallam moo ko gënal ak bëggam moo tax mu waxe noonu Omar wax na lu mel noonu saxaaba yu jigéen yi am na ci soxna soo xam ne ci xar ci xaswatu Uhud dañoo rey baayam rey mbokkam rey borom këram Uhud dafa metti woon lool bañ déclaré sallallahu alayhi wasallam faat nañ ko Musab ibn Umayr xam nga ci lañ ko rewen ñoo xam da koo niru woon waaye moom fàtte na baay beeg borom kër beeg mbokkam ak yépp sallallahu alayhi wasallam rek la tal ay na Muhammad ana Muhammad mbaa mi ngi ci jàmm mbaa mi ngi ci jàmm ñu ne ko mi ngi ci jàmm mu ne bala bala ma koo gëm ngeen wan ma ko ñu wan ko lu mu ko wax kullu musibatin baadaka jalal ay hay musiba mu ne mën naa mën naa mën naa mën naa rëy waaye buñ la gisee rek buñ la gisee rek nga def ci jàmm rek doola woyof kooku roy na ummahatul muminin ñi nga xam ne yàlla da leen a wax dafa xalaat la ne ko kaay woo woo leen ñu ñëw nga teg leen tànnloo leen yàlla akub yonentam ak addina ba xam ne yooyu maanaam yi ci tànn yu tànn yàlla akub yonentam loolu yaa yoon bi yokkule soo ci ko ba mu jeex da koy firndeel. yaatu na ba ci sax ñi nga xam ne amuñu ay ruux jamaa daal yi ci nekkam sallallahu alayhi wa sallam dañ ko doon won cofeel ak ak ak dégg nga mbëggeel ak ak nam doy na ci misaal rek ëkk ji mu daan teg loxoom bu tedd ba ca Madina bu daan. xutba ba ba bañ ko defaree minbar mu taxaw ci minbar bi dañoo toog ci biir jàkk ji dégg ak ji di yuuxu di jooy di onk comme ni nit ku am xel di jooyee sallallahu alayhi wasallam wàcce ci minbar bi ñëw jël loxoom teg loxoom ba tëdd ba teg ci kaw ne ko dalal dalal dalal wax ci moom dalal xelam ba mujj mun a tekk dal moo tax Cheikh Xadim nee na qad xanna jiz'un nabi is anhu muntaqilun xaniina sakla allati fardaan wa axturima nee na aku sallallahu alayhi wasallam gi dafa onku bi mu bi mu bi mu tuxoo dem ca minbar ba ni nga xamee ne jigéen ji nga xam ne dafa yara dal lu mu jur mu dem dem ba am benn doom ba ñu am tàmbali am ci moom yaakaar ñu ne ko ci rek jël na muy onkoo ak na muy jooy ak na muy mititoo mitiloo noonu la ank gi doon noonu la ak gi doon def maa ngi gis bi may def gëstu bi ci gëstu bu am solo bi cheikh suñu mbokk ahmadou mbàkke daaru moo def te ànd ko waa marawdu rayahin tudde ko mahabbatu rasulil karim indal abdul xadim mu ciy nettali kissa boo xam ne ci laa ko gisee bu am solo moo tax ma indi ko sax li wane rek sallallahu alayhi wasallam ni ko bahima yeeg ak kii bëgge woon wax ne bisu ayit dafa jot yéen sallallahu alayhi wasallam di rendi gàtt yi gàtt yi ci seen bopp di njëkkante di ko yoor seeni dox ngir mu maanaam mu rendi leen xoolal li ngir ñoom ñu mos rendi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ay yatasaabaqna bi anaqihinna ilayhi kay yatadawwaqna dabha alhabibi sallallahu alayhi wasallam loolu sëñ bi kaay na lool waaw kon loolu day na jeex daakar naa misaal xëy na bu ñu jeexalee nag ci sëñ bi xam naa waxtu bi mel na ne dem na cinq minutes rek juróom minutes bu refee ñu jéem ko tënk ci sa sëriñ bi nag xam naa moom mooy li ci gënoon a li ñu ci gënoon a yitteel sax mooy sëriñ bi ni mu ni mu maanaam jëmmalee bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon naa ko ci tàmbali bi ne inna mahabbata rasul sallallahu alayhi wasallam law kanat jasadan bi ruuxihi wa uruqihi wa idamihi wa dami la kaana al abdu al xadimu hada al jasad ndax da ko da koo jëmmal jëmmal na ko ci yiñ ci wax yépp mboolem màndarga yiñ joxe ci bëgg sallallahu alayhi wasallam yépp Sëriñ Tuubaa benn bu ci nekk wane na ko ci ci bëggam sallallahu alayhi wasallam ci nekkam boo demee ci ay mbindam bari na lool lu muy wane ak bëggam yéen sallallahu alayhi wasallam buxtu bi xubbil muntaqa bi kalimi min asasin li masasin bi qalami qaala almuhibu li rasulillahi muhammadin sibtu xabibillahi billahi ahbabtu rasulallahi alayhi xayru salawatullahi wax na ci bari biman bi xubbihi nasiitu layla wa dahaban wa fiddatan wa xayla gëstu boobu mu doon junj léegi ku ci delluwaat dañ ci fekk lu gën a yaatu lool wane ne daal bëgg bëgg salaa sallam bu doon sax am ñollu sax naan na ko ba màndi ci sakartu min xamri mahabbati nabi bu doon jéeg sax lab na ci gariqtu fi baxri mahabbati rasul wa artaji bihi rida wal qabul dem na ba ne bëgg salaa sallam tax na ba bëggatuma ay kër ay jaboot ay doom sama deret sama njaboot sama doom lépp jotoon naa ko sallallahu alayhi wa sallam mahad mahabbati wa saar tudd yooyu di bëy di wax ne min nañ ko suñu yàng ko waaye dundal salal dundal sunnaam ci ngir firndeel ak bëggam sallallahu alayhi wa sallam cheikh da ko def xam nañ ko ci ni mu sunna ni ni mu ni mu nekk woon nitub sunna ci pas-pasam ci ak jaamu yàllaam ci kooram ci ay jikkoom yu tedd ci ay meloom yu rafet ci yitteem ju kawe ci bëggam lu baax ci colom maanaam lépp lu lépp loo xam ne sunna sunna xam nga ay xeet la sunna sunna xawliya sunna amaliya sunna dégg nga maanaam axlaaqiya lépp luy xeetu sunna rek gis gis nañ gis nañ ne sol xadim da ko doon maanaam sunna woo ngir wane ak bëggam sallallahu alayhi wa sallam ba ci ak lekkam ak naanam ay waxam yépp da ci rey sallallahu alayhi wa sallam wax ne inni muahidun ala taqayyudi bi sunnati almuxtaari tuul al abadi banaytu taatiya bi ittibaaci bi dicri wal xadis wal ijmaaci beneen ba firndeel na ko itam ci li ñu waxoon ci mandarga yi ne ku bëgg saa sallam da ngay bëgg di ko da nga koy namm bëgg di ko gis bëgg saa dem gis nañ ko ci ay téeréem lu bari lool muy jàmbat bëgg a dem siyaare gi sallallahu alayhi wa sallam yaa layta nii qad zurtuhu bi jasadi ka xaatiri xata yuzila awadi qalbi ilayhi saairun wa zairu wa badani qad aaqahu jazairu arju bi rahmatihi almuhdaati sayidina zawri madinatahu daaru rayaxini دار متى ما يسرها زائر لهدى يسعد هي الدار دار الحق والدين نيو نك سي اك بغ اك سوبم خيت وي واخ نانكو سي بي ني واخ ماندرغا يي نيم لين يرمي وون نيم لين دان بايي خيل سي اي ñaanam ci ay ndigalam te xeet sallallahu alayhi wasallam ñaari xeetu xeet la ummatu da'wa la ak ummatu ijaba ummatu ijaba mooy xeet yi nga xam ne dañoo gëm yéen sallallahu alayhi wasallam nangu ab wooteem di ko topp ñoo ngi sëriñ bi di leen bàyyi xel ci ay mbindam di leen ñaanal ndimbalul yàlla day dégg maanaam lu mel ne xud lahum nasral aziz ajila wa bashiran hum ajilan wa ajila ak yu mel noonu bari na dem na sax ba doon sol bu mbubum avocat taxaw ci kanamu yàlla mel ne kuy layoon xeet bi ci xas ci xasida mat la bu sifaay waaw wa najjihim wa aafihim waltuf bihim wala tuwaxisu bi kusri zanbihim fa innahum wa in asawka ya ahad li gaflatin lamisuko bika ahad ba mu jeex di wane ne kon mooy seen avocat xot ummatal mustafa an kulli mafsadin ñooñu loolu ummatu ijaaba la ba ci ummatu daawa mooy xeet wi nga xam ne ñi nga xam ne ci xeet wi bi saa sallam woote wusuwuñ dañoo nekk dañ nekk sax ca muy ma xam ñu nekk ay yahud wala ñu wala ñu nekk ay nasaraan wala ñu nekk ñeneen ñooñu itam da leen a bàyyi xel de da leen di laay biir yaa ayuha alyahud lay wax yaa ayuha alyahud wannasara kunu li xayri mursalin ansara tuubu ila alilahi watlubu alhuda minhu taala biittibaci ahmada baana culuwuhu min allahi alahad ولا نبي بعده فيما ورد واجهتكم بالحق ذا نصيحة من رد حقا باء بالفضيحة ين يهودي ين نصراني دم لين صلى الله عليه وسلم دون لين أي أنصارم توب لين جم في الله ساكم جمم توب لينكو كي لي الله كويل أمول ينام تبنيو جناوم دم لين لا يبي بيت دق سجن كو دق بعد سجن كو دلو نك دلو وات دلو قاتي باء بالفضيحة قلت لكم هذا فإن أسلمتموه لربكم من ناره سلمتموه وحنا لن لولات نحن لن سنين توبة دلوا سن بروم بولا ngeen mucc ci da nga sawaram waaye loolu lépp la ci gën a neex ci gën a fis nag mooy jaayante gi mu jaayante sallallahu alayhi wasallam ci liggéeyal ko nag muy xidmatahu saniya nga xam ne moo ko def mu doon asna xadim gi mu doon loolu da cee wane ak bëggam sallallahu alayhi wasallam waxoon naa ko wane ne liggéey liggéey gi mu koy liggéeyal ak tàgg gi mu koy tàgg bëgg jëmm ji rek tax mu koy maanaam moo tax mu koy def daani li ixdaami nabi xubbu daatihi bi xubbi raximan lam yazal qattu raxmana yaquduni li xidmati lmaaxi rasul xubbiya daatahu wali wali jaada bisul ba noppi gis ne salaa sallam mooy ki gën a yay ci ab liggéeyam fa xaq jumlati lwara bil xidmati bin nadmi wan nasri rasuli rahmati taxoon mu jël at mi xaaj ko ñaari xaaj juróom benn weer yi tagg juróom benn weer yi salaa على الذي مدحت من رأس الحرم في ثالث الشهور وهو منكر الله تم خرف بجمعة الثانية تقنا من رجب إلى انتهاء ذي الحجة له علي صلوات الحجة تم لك رجب داي كور بتمسكنك دور من صلوات لا موي دي دي دي دي ديواني ديوان صلوات دي ديوان أمدح له لب ci bëggam sallallahu alayhi wasallam ak ci xidma boobu nga xam ne ci la ko ci la ko ko liggéeyal ak bëggam alquran nag moom kenn waxaale wu ko moom kitaabu rabbi li xalilun wa habib yuhibbuni bi hubbihi kullu labib lim ci wax moom ak lim ci jëf moom jataayu boppam la te bu boppam la quranu ahmad la abqi bihi badala bihi aqulu ila rabbil wara alulama rabaxi kitabullahi wa sunnatu allati ahadisuhu tafsiruhu lastu sahidi def na sax ba ne alquran sax ni ma ko bëgg laa bëgg xadis sallallahu alayhi wa sallam أحاديث النبي أنت خليلي وحبيبي وجدتني بسدادي أحاديث النبي إنك حق لتخطي نحى بأمر مطاع ما شاء الله bëgg alquran bëgg hadis bëgg gàmmo raxabtu taaziman bi shahri lmuntaqa alayhi taslima munid alirtiqa basharta ya rabiu kullati tuqa ya darfa nurin wastifain wantiqa kon loolu ku ko doon yaatal dana yaatu lool lu mu jur nag mooy meññeen mi xam na siblaat meññeen bi moom yaakaar moom mu xat ci waaye daal meññeen bi moom mënees na ko tënk ci benn xadis rek wala ci benn tomb bu am solo mooy li nit ki di witte ci bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu doy na ci rek daraja doy na ci sax ñaari yëf benn bi mooy bu ëllëgee nga bokk ak yonente sallallahu alayhi wa sallam fa muy nekk ci àjjana fa gën a kawe ci firdaws si ما شاء الله loolu li koy maye muy bëgg sallallahu alayhi wa sallam te hadis yaa ngi nii leer nañ ki ñëwoon ci moom ne ko kañ la saa mu ne ko loo lo- loo ko waajale mu ne ko waajali mu ne ko jul waajali wu ma ko julli yu bari wala koor gu bari wala sarax yu bari waaye maa ngi ko waajale ne ku bëgg yàlla laa ak yonentam mu ne ko anta maa man ahbabta su ëllëgee yaa ki nga bëgg yéenay bokk nekk am na yeneen yu- yu mel noonu xalaawatul imaan muy neexitu ngëm yàlla itam li koy bokk na ci li bokk na ci li koy maye mooy bëgg sallallahu alayhi wa sallam te muy dëgg ci yow saa sama xam ne salaasun man kunna fiihi wajada bihinna bihinna xalaawatal imaan yi ñett ngi yoo xam ne kum ne ci yow nga am xalaawatal imaan xaw lu lu mat a am la zoqtu xalaawata ibadati aljamil fa li siwa ridaihi lastu amila soo xati wax soo xasee mas ngërëm soo xasee mas neexitu jaamu yàlla ak neexitu gëm yàlla jaamu yàlla day neex ci yow da ngay sawat jaamu yàlla moo tax mu ne ñett ngi yoo xam ne kum ne ci yow nga am neexitu gëm yàlla an yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma yàllaa ko yonentam gënal la ku dul ñoom ñaar nga bëgg nit ki te doo ko bëgg lu dul ngir yàlla nga bañ a dellu ci kéefër ginnaaw bi li ci yàlla xetlee ni ngay bañ a ñu sànni la ci sawara kon ah loolu doy na sëkk kon ñu ngi jeexal foofu di wax ne yàlla ñu yàlla def ci ñi nga xam ne jaalana allahu mimman yuhibunahu fi llahi wa lillah ما شاء الله الذين كان يصفهم للصحابة ويقول لهم من من أشد أمتي لي حبا من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله وإن إن قوما يأتون من بعدي يود أحدهم أن يق- أن يقتدي برؤيتي أهله وماله وجعلنا ممن قال فيهم عليه الصلاة والسلام طوبى لمن آمن ولم يرني طوبى لمن آمن بي ولم يرني اللهم إنا أحببنا حبيبك آمين وأحببنا آله الكرام وصحبه العدام وكل من له صلة بالحبيب وكل ما له صلة به صلى الله عليه وسلم وأحببنا عبدك وخدم رسولك لوجهك الكريم فاشهد لنا بذلك واجعلنا ممن يحيون سنته ويقتفون سيرته واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصل اللهم وسلم وبارك على الرحمة المهداة الحبيب المحبوب لديك ولدى الهداه سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وأسنى خدمه صلاة وسلاما وبركة تجعلنا بها من أهل المقامات والسعادات وكل عام ونحن إلى الله ورسوله أحب وأقرب ما شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته